mukk mënta nekk ak yaakaaru moo ko woon kàddu la yoo xam ne ñi xam politique dëgg dañ ne amu ca ndax nag lu ca bees waruta bett kenn ci lenn le quotidien langu politique gi kay am na leneen lu ci bees ubbil yéenekaay bi journal bi ne opposition bi di ku jégi taxawal nañ kuréel gu yees goo xam ne ñi ko seq ñoo di Idrissa Seck maître Madické Niang El Hadji Issa Sall El Hadji Malick Gakou Pape Diop ak Hadjibou Soumaré te booba fekk na Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane Sall taxawal seen kuréelu bopp duppee ko CRD Ousmane Sonko nekkoon ca geneen wet ga di doxal ak jot na journal bi ne lii lépp nag lu muy tekki moo di ne ñi fare ci kujje gi noppi nanu ngir jaamaarloo ak nguur gi fi nekk ñoom it booloo defub dànk gannaaw bi président Macky Sall joxantee loxo ak président Abdoulaye Wade la turbine ne dëgg la te it ndaje ma am na te yi ñoo ngi ci yoonu defi fu yore wàllum yoon ci réewum Sénégal moo nekk ci xët u njëkku l'observateur ubbi yéenekaay bi journal Rue 15 angle corniche bi tey ministre de la justice garde des sceaux la dalal di maître Malick Sall mu fay xamle ni ubbi nanu enquête ci mbiri Karim Meïssa Wade bu fekkee mbiri Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck di ñaar ñi doon tubayul may sa Wade garde des so nee na bu nu leen dàqul woon itam ñoom ñooy jëlal seen décision bopp tekki seen ndombal tànk waxe ñetteelu mandat maître Malick Sall li mu ca xamle moo di def ni apéris yu bëri def ne du ca wax waxi yoon te ñu bëri wax ni mooy yottu Ousmane Sonko ci la réew mi quotidien xëy di wax ubbi yéenekaay bi journal bi ne ci coowul 94 milliards yi Ousmane Sonko tuddoon Mamour Diallo Ousmane Sonko képp kuy mbokkam ne ko na gaaw uti ñaan ndax nag gannaaw mbàkke mbàkke yu ndaw yi doon sàkku yoon teg loxo bii yoon rawatina tey ci aljuma ji ca Tiwaawan Njaasaan ak Pire am na kilifa diine yu fa defi ñaan ak i dok ngir yoon teg ko loxo moom Ousmane Sonko waaye it musiba dal ci kawam mbirum yoon itam dala dina ci kaw Abdoul mbay Libération ne la tax ñu wax ko moo di ne coow li dox ci diggante Abdoul mbay ak jabaram ja woon jeexagul ndax nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi nu dëgmal ci la nara wujji waat tribunal yéenekaay bi yokk ci ne moom Abdoul Mbaye sax li ko yoon wax ba fii moo di mu jébbal jabar ji lu tolloo ko juróom fukki million ci xaalisu CFA loolu nag la ki fi nekkoon premier ministre ba noppeeti jiite parti bii di acte ne xalaatu ko def mbirum yoon itam Babacar Mbaye Ngaraaf dina ca wuy ji waaye nag bii yoon ci coowul Aliou Sall lay doon te coow loole yéenekaay bi nee na bëri na ay punkal yoo xam ne dinañ leen ci convoqué waate ngir ay enquête enquête yéenekaay ci calcul yi président Macky Sall nekk la xëy fesal ci aw xëtam journal bi ne lépp nag moo ngi tënkoo ci boole élection locale yeeg élection législative yi ci atum 2022 te loolu bés bu amee manees nanoo wax ni président Macky Sall dëgg dëggal na xalaatub Aïssata Tall Sall maître Djibril War wax na luy tàkk te du fay ubbil vox populi maître Djibril waar ne dootunu nangu benn yoon seenu parti di parti APR nekk lëm moo xam ne bukki wala lu bu jukk daw làqatoo fa ñu wër président Macky Sall nag di kompaloo ko def yëf li leen maître Djibril waar wax weñ wu ca dal dee wax ji soxna Aïda waxoon ba tax xalifa bi mere ko daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee na jéggal na soxna Aïda Diallo gannaaw bi mu sàkkoo ci moom njéggal laas xalifa bi boole na ca xamal ko ni mu topp digaley lislaam te ànd akuk dal la enquête yéen kaay ne sëriñ bi jéggal na soxna si ba noppi digal ko léese ko ne coow li ko topp moom soxna Aïda Diallo moo tax mu nar a jël roppalaan génn réew mi te boo moytuwul bésub gàmmu sax du ko fi fekk fekkaat leen ma ci xët wu njëkku léese ko kayita Keita akub xaritam ñoo fa nekk nee na na ay agresseur a leen dogaale dóor leen ban leen di toggalum xewar boole ca nangul lépp lanu yore woon lépp moo ngi xewe ca Malika soriwul dara Malika moo di yëmbal noor jàpp na fa benn professeuru mathématique gardien école ba ak benn dawalkatu saret ndax danoo lëkkaloo woon di sàcc taabal ba ya nekk ca école ba di ko jaay